waaw euh, comme ni nga ko waxee rek àdduna moom. Mhm. noonu kese la. Mhm. Euh, am kenn du fi des. Mhm. ni gaa yi di waxee kenn du fi des. waaw amul kenn ku la mën a waatal na ne. moom biir na ko ne dina yetal su boobu ngoon jot. amul aussi kenn koo xam ne bu fanaanee dana mën a yi. ne dina mën a yeewu. mënta ne kon dundu doomu aadama mu ngi ci loxol yàlla. allahu akbar euh, xam nga Sidi Lamine boo fàttali ko bés bi tey. bés la boo xam ne dafa dis dafa dis ci man. surtout si période bi nga xam ne ci la ñu nekk di waxtaan jamono ji waxtaan waaw mhm. parce que dama jóge journal sept heures rek mhm. di génn dajeeg Penda Diallo mhm. mu mel melokaan bu doy waar waaw si bopp moom annoncé ne Sidi Lamine Niass dégg nga dafa génn àdduna allahu akbar ci jamono ji soxna Ramatoulaye Sarr mu ngi nekkoon fi def question auditeur moom it mu arrêté question bi waaw ku fu nekk ñu fay yuuxu xam nga nekk ak jigéen dafa xaal doy waar ñoom ñëpp a ngi yuuxu kenn xam lu mu doy waaw bu may jàpp fii jóge di jàpp fële jàpp fi jàpp fële. Mhm. ba finalement ci laa woo Assane Diouf ne ko oustaz waaye ñun information bi ñuy dégg ndax am na mën ma effectivement am na. Mhm. mu ne ko ah bu fekkente ne am na est-ce que duñ ko yëgal askan wi mu ne ma ma tuuti. waaw ci quelque temps ci la ma woo téléphone mu ne mën nga koo yëgal yëgal askan wi. Mhm. ci laa mu nekk nag loo xam ne yombul woon aussi. Euh, jafe woon na diisoon na jafe woon na waaye dama gëm na ne foofu ala kulaa ñu def ko. waaw ci laa yëg. nuyu askan wi jox leen information bi. Mhm. waaye ba information bi jibee Abdoulaye. mun naa wax ne ne li ma fi gis ci ay mbooloo. Mhm. muy ay acteurs politiques. Mhm. de société civile de ay kilifa diine kenn xamul nu mu toll. kenn xamul nu mu toll. daanaka sept maa maanaam huit bi ñu jëlee asafala neuf heures bi ñu jëlee euh, antenne bi. ba quinze heures. fu nekk ay nit ñi nga fay ñëw di joxe seen jaal jëmale ko ci ki nga xam ne moo di Sidi Lamine Niass. kooku muy wane ne kon ab monument dem na ab ponkal dem na. kon kooku tey ji bu demee ba tey ji anniversaire am jut jub si dañu koy delloo njukkal li may faral di wax nag mooy mooy que mm-hmm. Sidi Lamine Niass engagement am ci biir réew mi nekkul xam ne dafa umpale mm-hmm. te am solo ci waxam mooy que lépp loo xam ne mosoon na ko fi wax ay jamono tey jii bu tegee dafa ne moo gën a actuel ah, waaw ndax mel la gën a mm-hmm. yi nga xam moom la yëkkati woon ay jamono tey jii boo ko tegaatee mel ne moom la njëkk moom moo njëkk a ñëw moom moom ba ci diine ak jamono bii passé kon dafay wane ne mu ngi woon na nekk noonu nit ñi di di di joñante ak ñoom waaye yàlla am na ci benn dimension bi nga xam foofu la ko yóbbu waaw moo tax may faral di wax ne acteur politique yi fi nekk tey mhm. na nguur gi fi nekk tey chance bi ñu am mooy que le fait que ñu dem ba seen nguur gi yàq te si la menace fekkee ko mhm. situation bi nga xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy dudd jamono ji boo gisee tey jii mu mën a nekk c'est parce que ku ci mel ne Sidi Lamine Niass newu mhm, mhm. boo gisee injustice bi nga xam ne daanaka sénégalais ñu ngi koy dund jamono ji wala lenn ci acteur politique ñu ngi koy dund jamono ji bu fi nekkoon bu Sidi mhm, kon mooy problème moo tax ma di wax ni chance bi nga xam ne état bu Macky am na ko mooy le fait vraiment mu teg ba nguuram jeex juróomi at yu mujj yi Sidi Lamine woon que bu ko amaane neneen la parce que Sidi nekkul fu ma dem ba nekkul fu ma paate mhm. waaye li mu fi nekkoon maanaam a fii laa fii laa fii laa mën a moom la gunge tey bu mu teg ko ci palais ba fay ko xorom mhm. fay fay naar bi xoromam mhm. te maa ngi fàttaliku la mu ko njëkk a fay bu mu toogee mooy envoyé ko envoyé ko fisc. ba diisoon gan. ma fàttaliku waay mm. maa ngi fàttaliku ne Ousmane Sène si boobu moo ne ma euh, nañu titré parce que dafa mel ni que gars yi dañoo nekk ci tànk mm-hmm. tëj groupe Walfadjri. waaw waaw laa ko titré sa titre ba journal. garaaw ba ne <laughs> si euh, euh, Macky Sall. Mm-hmm. signé na acte de décès bu groupe Walfadjri. waaw waaw moom ca kaw la jógee. ak mm. tànk ak tànk ne nam ñëw na si na wàññil. waaw waaw mm-hmm, mu wóor la mu wóor la ne. loo loolu dafa amoon solo. Ah, Abdoulaye ah, que mooy wane ni euh, politicien yii dafa bari si ñoom ñoo xam ne ni amuñu ngor. Mhm. dafa am ay politiciens yoo xam ne nii daanaka boo xoolee ba xool ñoom pouvoir la ñuy jaam mais jaamuñu relation doomu aadama. Mhm, mhm, moo tax fii rek ñu ngi ut ñu baax lañu. waaw ñu baax rek ñu ngi ut jàppal nañu ñu saaga lañu. tey jii bu fekkente ne bëgg nga defal bëggoon nga ñu defal la constitution bu mucc ay jox ab ab opposant ab opposant bu la bindalee constitution da ngay naan yaaramu kàllaa. tabaarkalla mais il suffit que mu toog ci pouvoir bi mu mel ne ne kii est ce que moom moo nekkoon ci opposition moo tax chaque jour may wax population bi ne leen. Mhm. boo faral nit ki da ngeen di moom ci xel mais da ngeen di moom ci xol. parce que Ousmane Sonko ni ko population bi toppee tey jamono ji mais boo fàttaliku Abdoulaye Wade doon nañ ko toppee en <laughs> noonu la woon. Macky Sall mii moom lañ ko toppee woon en 2010. en 2012 Mhm. moo tax tey jii bu ma jékki-jékki dégg wax assise nationale di wax ma ne ko da a yee xam nga fa ngeen fa ngeen tooree mhm. mooy ba président Macky Sall dañ ñëw signé mu damay signé par mais je demande que da ngeen ko sous réserve amul mënta ne da mën a signé nga signé ba mënta signé signé mm-hmm. mais naka la ay nit waxtaanee def assise nationale ñëpp d'accord ne lii moom Sénégal bu ñu tënkoo macha allah nga nekk ab candidat Sénégal yëpp wóor na yow yaay waaja. ci loo xam ne nii jàpp biir na la tey jii boo ko deferee Sénégal jëm ci kanam. nga ñëw ne ma signé pas sous réserve. donc la xel. tàmbalee waroon na tey pour xamal ne politiciens yi na ngeen di tey tey si ñoom. lañ leen di wax ak li am si ñoom si diamétralement opposé kenn ku ne am nga sa benn programme xam ne programme caché la yaa ngi ko bind yaa ngi ko denc sa nopp. sa bakkan si sa ginnaaw léegi. li nekk si xel doo ko doo ko wane mukk uh-huh. li neex population bi nga leen di wan il faut nga nekk ci pouvoir yi nga def leen neex moom moo tax Sidi Lamine Niass uh-huh. yàgg naa di joñante ak politicien bi daf leen a xam moo tax bu leen xamee xam xam moo taxoon chaque jour bu ñëwee gunge la ba accès fii laa mën a yem ak yow dem naa askan euh, waxtu woo jimee nag mu jël place parce que boo <laughs> xoolee uh-huh. discours bu mu njëkk jël moo nekkoon artu population bi xamal leen waaw waaw boo fàttaliku moom moo njëkk a xatt population bi ne kii tawum noor la béykat soxla tawum noor nag xam nga lu ci sàmmkat soxlawu ko <laughs> nappkat soxla ko soxla sàmmkat soxlawu ko uh, nappkat soxla nappkat soxlawu ko béykat soxla béykat soxla ko même askan sax wi nekk fii Ndakaar soxlawu tawum hmm, noor moo ko njëkk moo ko njëkk kii hmm. kon tey jii tey jii discours boo xam ne tey jii wax na ko tey jii la gën a tey jii la gën a actuel hmm, kon nit kii bu demee mënuñu def lu may lu may ñaanal ko mais moom dem na bàyyi ñoo ko askan wi ne askan wi mooy suñu patron baat boobu jëmmal nañ ko ci guddi yi wal Walfadjri dund weer yàlla ñu weesu bu doonu toon askan wi mu demee ne neen ah mais ah, euh, euh, gis nga gis nga gis nga Ablaye mhm. neexul bu neexul waaye dem na aussi bàyyiwut ki mhm. Cheikh Niass bi mu ko bàyyi aussi puso bi réewlu ci loxoom mhm. honnêtement waxati dëgg dem na bàyyi ko ak Cheikh waaw mais taxul aussi Cheikh Niass puso bi réer ci loxo tout parce que tey jii bu fekkoonte ni si Lamine Niass génn na si Cheikh Niass ñëw ne léegi damaa bëgg ñu changer li Walfadjri waaw sañoon na ko Seydina Omar mooy njëkk wax ne ko Seydina Cheikh Niass <laughs> sama def <laughs> dem nañ suñu yoon uh-huh. parce que boobaa dootuñu wax ñun askan lu ñuy mën a dégg ñu uh-uh, uh-uh. parce que tey ji Walfadjri liy doolee maanaam mooy le fait mu nekk la voix des sans voix damay faral di wax nguur bu fekkente ne am nañ ku leen wax la am nañ fu ñu ko mën a waxee parce que am nañ seen RTS uh-huh. bu ñu bëggee lañ fay wane nañ ko fa wane ñoom parce que ñoom loolu seen seen seen bien que ñu wi la mais ñoom dañ ko jël moom la ko seen bopp mm-hmm. est tey jii da nga jékki-jékki dégg askan wi am ay jafe-jafe di ñu daal di jël ko daal di koy wane RTS mm-hmm. amul mm-hmm. mais tey jii waxtu woo gisee ay sagar yu xonk rek c'est parce que Walf Fadjri Walf Fadjri lañ doon jël ne ko de lamentation kon tey jii bu fekkente ne Sidy Lamine Niasse jóge nangu woon ko ay doomam ñëw bëgg a changer loolu kon voix xaw doy waar. Mhm. mais ñoom dañu ñëw daal la voix des sans voix te xam nañu mission Walfadjri. la preuve mooy que. Mhm. ci at mii liñ ci tëj groupe Walfadjri mosuñu ko sax tëj ci jamono si di la mel. Mhm, maanaam te terewul kër gaa ngi taxaw. taxawul kër kër gaa ngi taxaw. kon li ñu mën def rek mooy xamal ne ñun moom. askan wi lañ fi nekkal te dara du ko dindi. waaw mission la waaye dañuy wéy di xeex di xëy di leen taxaw di xëy di leen jàppale. am na ci solo. parce que ñun loolu loolu loolu moo tax ñuy dund. Mm-hmm. nekk ñu fi contre pouvoir comme ni ko gaa yi. Mm-hmm, mm-hmm. Macky Sall bu fi defee BRT lu ko war la. nguur gu fi nekk boo fi defee BRT lu la war la. boo fi defee teer lu la war la. boo wàññi njëgu dund bi loolu la war la. am Ablaye boo nekkee sa biir kër. nga jël si jabar jox ko koddaay. waaw jël say doom jàngal leen. defal leen affaire. kooku lu la war la kenn jaruñu la ci woo di la ci ah, remercier euh, jarta jokkanjal jarta jërëjëf kooku sa warugar la jaruñu la ciy remercier yi mhm. la woo moom sa warugar la mhm. mais li li li problème kay mooy wax la li des ci kër gi nga war ko def waaw li des ci kër gi li des ci kër gi da nga war ko def dañu koy fàttali mhm. loolu mooy taxawal Walfadjri si nguuru Macky <laughs> mais tey ji bu fekkonte ne président waxtu wu xëyee xool Walfadjri wala des fois mu am koo xam da koy tànn ne ko dama xoolal Walfadjri pour ma xam jafe-jafe yi acca dafa contre pouvoir. Mhm. alors que c'est pas ça. mais mais déglu ko ci contre pouvoir boobu. wax ko ci nu critique wax ko ba nga jàpp sax ni opposant la waaye fekk na ne contrôle pouvoir bi moo tax ñuy wax naan la contre pouvoir n'est pas nécessairement contre le pouvoir maanaam foofa yàlla ngi teg koo xam ne du nelaw du sàggan te xam na lii xew te bët bu set mu fàttali bët bu set mu taxaw poñewante ci lii du ngeen ko fi defe te fekk nag bëgg loolu pour boppam du ko ko taxa a jóg kon yàlla indi malaaka malaaka posé question bu métti atajaala fiiha man yufsidu fiiha wa yufsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak ngoog borom xam-xam dem na. gis nga nu mu ko waxee dëggal na kàddu yi ñuy doon faram-fàcce léegi. Ah non c'est ça c'est ça mm-hmm. mais c'est dommage que mooy dëkk boo xam ne bu fekkee da nga ko da nga ko bañ. Mm-hmm. <laughs> waaw. te bu ñu waxante dëgg aussi di jàmbaar la. parce que dund na fi ay guddi yoo xam ne daanaka ku ne kuñ ko doo ko mm-hmm. guddi yu métti ay guddi yoo xam ne nii métti woon na lool ci moom aussi métti woon na ci presse bu. ci bi waaw liggéeykat yi fi. mais terewul mu ngi doon mais gàcce gàllaab aussi yéen liggéeykat yi fi ko doon jàpp ci parce bu weer de ngor ko fay fayoo mhm, mhm. mu dem ba ay la 24 25 pour nga jot sa pale problème la mais doo dégg benn yoon mhm. personnel bu groupe Walfadjri génn daal koy daal koy daal moom dafa doon am jafe-jafe sax pour jàkkaarloo parce moom bu doon làqatu ci làqatu waaw <laughs> réunion yi mu doon woote sax daana ko woon woote parce que am na kersa jàkkaarloog Ablaye Bopp mhm. comme quoi ko fayu ko ma ngokk waaw ndeysaan moo tax comme ni ko gars yi waxee daan jël sax ay bien am di ko jaay pour fay salaire mhm. d' information yi nga xam jot naa ko mhm. waaw waaw mais tey ji bu fekkente ne dem na te la mu doon def uniquement pour askan wi la askan wi la dellu suwaatee dañu ko war a dellu njukkal boo gisee mën naa la politicien du mbokk mooy <laughs> président Sidi Lamine Niass bii xeex gi mu xeex ci nguur Abdoulaye Wade parce que ba Abdoulaye Wade tere su di Lamine Niass moo xuus jàll. ma ngoog ne place de l' indépendance mu ne place de l' indépendance mu neex Abdoulaye Wade mu naqari fa dama koy organiser manifestation a ko bokk. ñëpp a ko mhm. ba politiciens yëpp ñu moom moo xuus organiser yaa tey jii moom moo ñemeloo politiciens yi. Mhm. ba ñu organiser ay manifestation ay place de l'Obélisque ak ñoom seen. Mhm. kooku tey jii xeex ba tey jii pouvoir bi ñoom ñii waa nguur gi jotee ci pouvoir bi. Sidi Lamine Niass génn àdduna jéemuñ sax décrété décrété benn day benn jour. mais mais jafe na nga dégg ku ci delloo njukkal si benn ci woy politique yi jafe na kuy waxtaan sax ba waxaale Sidi di dañ ko tudd sax allahu akbar duñ ko tudd sax wala faj sax boo booy waxtaan ak ñoom ba ne seen journaliste Walf Fadjri laa sax nga gis nañu du mooyu et pourtant bu ñu fàttaliku ay at ci ginnaaw fii lañ doon taxaw ci buntu Walf Fadjri ak ak seen raggaay ma denc du ma ko wax <laughs> suñu kanam fii lañu doon taxaw ci suñu ginnaaw mm-hmm. di la woo téléphone naan la Seydina Ablaye mm-hmm. gaa jàppale waay gaa invité ñu émission émission ndeysaan mm-hmm. fii lañ doon taxaw maa ngi fàttaliku benn émission ataaya boo xam ne gis nga bu ñu wonee gars yi. Mm-hmm. da yéemu ci yàlla. <laughs> mais ñu mel ne ay squelette. Mm-hmm. <laughs> kenn xamul lu ñu nuru. mais tey jii ñun ñoo tey jii toog ci pouvoir bi jël Walfadjri def ko muy noonu. Mm-hmm. te du noon moo tax ma lay faral di may taxaw askan yi di leen yee ne boo leen di bëgg politicien da nga leen bëgg ak xel. xel waaw demee ci xel. bëggee leen xel mais pas nga leen bëgg ak xol. Hmm? des fois damay jékki-jékki gis ay collègues ak collègues di xuloo bay xeex ci ay politiciens. Eh, jaru ko jaruñu ko. des fois nga dugg ci bus gis ay nit ñuy xeex di xuloo di di werante. ci ay politiciens dañ koo jaru des fois nga dem ci biir kër gis kii faral kii kii faral ñuy xuloo sax ndax politiciens. Mm-hmm. politiciens yi jaruñu ko. jaruñu ko ko. ñoom ñëpp nag laa wax. Mm-hmm. amul ci kenn ko jar. ñoom ñëpp parce que lañ lay jaay ak li am ci nekk seen gàllankoor c'est diamétralement mm-hmm. opposé. Oh, waaw waaw. liñ lay woon ñoom. ba tax ngay xëb di ak li am si yem ak li am nekk seen ginnaaw. bo yàlla yàlla wute na moo tax na ngeen tey ci ñoom. Mhm, mhm. tey leen ci politiciens yi. jërëjëf yàgg nga ko artu. yàgg mu wax leen ko. boo gisee man góob ma ne loolu moo tax. Ah amu ci kenn nag ku ma ci gëm nag. Mhm. ci kaw nag ba ci suuf amu ci kenn ku ci gëm. du ci programme du ci doxalin parce que ñoom non non gëmuma leen. <laughs> waaw dañuy soppeeku programme gëmuma leen xam nga parce que ñoom ñëpp ay bukki lañu. dañoo sàlloo dañ dañoo dañoo dañoo bu ba dëru bay. dañuy ut rek dañuy siboor di ut rek gis nga bu ñu xasee ba am ñu soppeeku. waaw waaw dañuy labat. bu ñu amee rek euh, du soppi doxalin. pare nañ ci tët tët ma gars yi euh, nañuy gëm. jaajëf ba xalaat Sidi Lamine jaajëf moo ñu manqué rek. waaw Sidi Lamine euh, kenn amul fayam. moo ñu manqué waaye ba tey mu ngi ñuy wéttali ndax li mu fi tabax tey di groupe fajiri bu ñu xëyee béy si suñu waar askan wi tamit ah, wéttali ko leeru jamono. ku ci béy sa waar ñun moom ñu ngi béy suñu. ma ngoog Sidi. moom waxtu wu moom ñu ngi jéem a béy suñu waar. ma waaw am na ci solo. parce que dara gën ta neex. Mhm. ma toog ay nit woote téléphone. waaw dama Seydina mun a mhm. wa groupe Walfadjri mhm. dañuy wàcceel kaamil fii tey waaw waaw xam nga mhm. parce que dafa am benn dëkk bu ñu naan makk guy makk guy makk guy mu ngi nekk ci ndand fay fay bu nekk ci biir ngand kay dafa jékki-jékki lakk allahu akbar mu lakkee dëkk ba dara desatu fa bu ñëw ci Sidi wax ko mu dem ba jëlal oto def ci carburant wala mag chauffeur bu ñu naan Moussa waaw ngeen fekk yi leen ma ànd ak papis bay ñu dem fa ba ñu demee. def euh, jël euh, jël kii bi nu ñu ko waxee sax. jël mhm. jël jël jël image yi. waaw njàmbatu askan wi ñu ñëwee ñu def ko bande annonce. Mhm. ca bande annonce ba la problème askanu réglé wu. na kooku saafara am ci saa si. ca bande annonce ba. la problème askanu réglé wu. bari na ci ay gox. ci la ñuy toog woo ma téléphone ne ma yaa ngi dégg alxuraan mu ne ñu ne groupe Walfadjri la ñuy delloo. jukkal groupe Walfadjri la ñuy wàccal kaamil. allahu akbar te loolu benn décret kes la mm-hmm. bari na ci ay dëkk yoo xam ne chaque jour dañ may woo téléphone ne leen wal fajir amul leen fay lu may wàccee kaamil kon ñu leen wàcceel kaamil parce que lii bu ñu ko amatee c'est grâce à vous mm-hmm, mm-hmm. démb Gàmbi rek ci la ñu yendu démb kon loolu neexul ak ci kanam tuuti fii ci jumaa ji fajar soppe ñëw nañu ngir euh, fekkee kaamil bi ñaanal El Hadj Sidi Lamine loolu boo ko amee ci dund rek tabaar fakal neexul ah way neex na tabaar fakal la dafa ne boo nekkee ci àdduna fexeel jëf ba bàyyi fi doom ju baax ju lay ñaanal. allah akubar amiin waay. maanaam doom ne def nga ci moom alxuraan. Mhm. dina liggéey boo géey mu lay goo xam ne nii au moins bu ci nit ki soxloo. Mhm. nit waay soxla dana la fekk si. lu am solo la lu am solo la aussi def ab xam ne nii. Mhm. dañ fiy liggéey uniquement pour askan wi la. allah akubar bépp askan woo xam ne ko suñu borom xaare ko ci àjjana ya gën a kawe. jërëjëf Seydina dana aussi sañu eh, eh, di gën a di ko jaale si axanas di ko jaale ay rakam waaw surtout sa njaboot ne leen daal wax dëgg yàlla puso bi aussi liggéeyul seen loxo mu réer ay jàmbaar lañu waaw ay jàmbaar lañu mhm. dëgg na métti waaye ñu ngi ciy génn ñu ngi def seen kéem kattan pour génn ci yi tamit ay soppe Walfadjri wa afag waa ñoom ñëpp jàpp nañ ci bés bi Lamine Diawara ak ñoom commando ak yeneen ak yi ñoom ñëpp waaw jàmbaar la ci taxawaay waaw Cheikh Ndaw waaw Cheikh mhm, waaw Cheikh Ndaw Cheikh Cheikh moom it ñu ngi koy delloo njukkal bu baax a baax ngoog ay ñoom Basirou Ba Basirou Ba waaw Looru Baye ñoom ñëpp euh, Walfadjri commando ba ci El Hadj Cissé bi nekk ak Adi Niass Adi Niass ñoom ñëpp ay mhm. nit la yoo xam ne di waxtu wu Sidi mhm. ah. gis nañu ñëpp seen taxawaay kenn amul seen kenn amul seen yàlla fay leen jaajëf Seydina Omar Ba wax ci Sidi Lamine teen la guddul fendi mun nañ ko jàppee nii ba tisbaar ba takkusaan ba gée waaye nag eh, lu jiwoo jeexul jógu fa kaddu gi mooy ñu ñaanal ko suñu borom xaare ko ci àjjana ya gën a kawe jaajëfal Seydina Omar Ba ci njàngat leeg fàttaliku jot nga fàttali ay valeuru El Hadji Sidi Lamine te loole baax na ci ndaw tey nga xamante ne war nañoo mun a root ci lu bëree bari ci El Hadji Sidi Lamine Niass Adama Ndiaye mi ne woon ci machine bi ci kaddu gi Abdoulaye Bopp mbokk